émission euh, Ndoumbélane comme ni ñu koy defee euh, vendredi bu nekk nar fi euh, waxtaane tey li wàllum actualité ci noonu ñu war fi waxtaane lii ji réhabilitation au marché Sandaga ak décision bi ci ministre de l'intérieur jël mais également dinañ ñëwaat def point quatre mois après lii di Covid 19 bi mu duggee suñu réew ak tey donc loolu yëpp waxtaan bi définir fi actualité largement dinañ ci ànd ak kii di président Moustapha Diakhaté mu président du mouvement Manko Taxawu suñu APR di ci ànd comme ni ñu koy defee tous les vendredis ak suñu ay chroniqueurs may commencé nuyoo ak kii di Pape Mactar Diallo Pape Mactar nuyu naa la. Euh, neen Aïcha fay naa la di nuyu aussi Sénégal yi nga xamante ni heure bi dañuy bàyyi seen yitte yëpp di ñu seetaan à travers la la Sen TV di nuy euh, Omar Faye Ndeye Jimé Mouhamed ak ñëpp ñi nga xamante ni heure bi dañuy bàyyi seen yitte di ñu seetaan bu baax. très bien alors ci noonu également damay dem directement euh, dem ci euh, président Moustapha Diakhaté président maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau. Euh, maa ngi lay fay soxna Nene di la nuyu di nuyu ñi ñu bo seqal plateau bi di nuyu waa D-Média yëpp jiital ci nuyo bi suñu rak suñu xarit Bougane gi Dany di nuyu waa Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuyu seetaan te ñaan yàlla subhanahu wa mu mu nu ba waxtaan wi ñu wax fi dëgg gu ànd ak njëriñ ngir réew mi. Mhm. am na solo lool euh, Omar Faye nuyu naa la. président di nuyu euh, Mohamed ak euh, Pape Matar ak Ndeye Dime di nuyu sénégalais yi fi nekk waaye di nuyu surtout sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk à l'extérieur mhm. nga xam ne à chaque fois heure bi véritablement ñu lay ñu leen di seetaan donc maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax baax di ñaan yàlla aussi ñu dugg seeg jàmm génn seeg al jàmm dañuy euh, ànd ak euh, Noumbelane tey également ak kii di euh, Ndeye Dimet Ndaw ndey Dimet maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm ci suñu plateau. merci beaucoup Néné Aïssa man aussi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp grand Omar maa ngi lay nuyu. di nuyu Pape bu baax a baax di nuyu Yaa Rasulala Mohamed ma lay nuyu bu baax a baax. di nuyu Moustapha Diakhaté monsieur le ministre di ko jox vraiment wàccuwaayam di nuyu tamit waa Sénégal ñëpp ñuy seetaan. Mouhamed Diop sangu sang yi Mouhamed nuyu naa la dalal ak jàmm ci plateau bi. maa ngi lay fay euh, Nene Aïcha di nuyu euh, téléspectateur Ndoumbelane yëpp di nuyu président Moustapha Diakhaté euh, di nuyu également Omar Faye leeral askan wi Ndeye Dimet ak Pape di nuyu ñëpp ñuy seetaan. alors tey gis nañ ko tey la ñu naroon def à partir de 22 heures euh, lii di euh, désencombrement wu euh, les la voie publique par rapport ak ñi nekkoon ci pourtour bâtiment central bu marché Sandaga kii di ministre de l'intérieur jël dogal nee ne que nañ ko ba après tabaski xam naa dañuy dem ànd sûrement ak euh, Fatima Diop mi ñu jëlali woon mi ñu teewaloon euh, ci euh, marché Sandaga mu ñëw ak ñun ci kii di ministre de l'intérieur wax kàddu yi mu fa jot sandi ñu déglu ko te ñëwaat ci plateau bi. def nañ le tour ca gannaaw donc la ñuy dem képp koo xam ne kii da ngaa fay da ngaa nar a dem tabaski te gannaaw ëllëg sa du la fekk ndakaaru booy dem yóbbul say bagage képp koo xam ne kii nag man ngaa dem tabaski ñëw jël say bagage benn fan lañ la may le lendemain neex yàlla dañu jël disposition yi pour euh, dégager fi cantine yi fi nekk donc yaakaar naa ne wax ji ñëpp dana leen wax ñu dana leen wax ne euh, président comprendre na situation wu commerçant yi jox nañu ndigal ñëw nañu wax dana leen wax ñoom ñu replier ñu may leen ñu liggéey donc ba ba tabaski pass voilà donc ñoo ko gisandoo mu nekkoon ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye euh, bi euh, jóg wax ne que président comprendre na euh, lii di commerçant yi président Moustapha Diakhaté peut-être ñu bëri wax ne que encore reculade état du Sénégal naka nga jàngatee li jot a xew par rapport ak réhabilitation li di marché Sandaga. d' abord maa ngi leen di gërëmaat ci invitation bi nga jégal ma rek bala maa tàmbali ma am yaari àq yoo xam dama ko yoreel ay nit bëgg ko bëgg leen ko delloo. mooy suñu kilifa yi nga xam dañ fay jóge ci fan nii muy mhm. soxna Fatoumata Zahra ak imam Cheikh Tidiane Seck ak euh, sëñ Pape Malick ma ñaanal suñu borom mu sëmbartal xéwalam ci ñoom euh, di leen jaale seen i bokk di ñaan yàlla fa mu leen fa ñu féete woon seen bokk yàlla féete leen fa di ñaanal ñaan aussi mu yem fi ndax wax dëgg yàlla weer yi rom moom weer diis na lool te tàng am te kon nag jëfi suñu borom moom alhamdulilah rek li julli war a teg beneen bi aussi suñu bokk yi nga xam ne dañoo gaañu ci mbas mi xam naa daañu ci dellu si ma ñaan yàlla moom itam mu xaar leen àjjana te nag dimbali nu yemale ko ci 125 yi yàlla mën nga ko yàlla na ko def euh, mbirum Sandaga nag bon bi ma ko li nga wax ni lu lu yanu maanaa la ndax depuis 2008 2009. Euh, ñaare fu ko gouvernement songe rek mel ne dellu na ginnaaw bu ngeen ko fàttali ko am na fi at moo xam ne président Abdoulaye Wade daa xëy rek ne na yëfi dakk mu am émeute bu metti te euh, jamono yooyu ñu dellu woon gannaaw man maa ngi koy fàttaliku booba bi ñu waxee coow li ndax jamono jooju li ñu doon wax ci booba ci parti bi PDS mooy suñu fi jëlee marchand ambulant yi dañuy perte Ndakaaru te jamono yooyu ma waxoon leen ne ah yaakaar naa daañu leen bàyyi ci mbedd mi waaye daañu perte Ndakaaru aussi euh, ginnaaw bi aussi xalifa boo ko seetloo songaatoon na ko fi ba defar fi ay centre commerciaux ku mel ne Félix Ibouy ak Kermel bëggoon a transformer Sandaga am projet bu leer waaye mbir ya sotti yu njëkk yi nag li ko indi ñaare mooy surtout rawatina Khalifa à partir de 2009 mooy nguur yi fi nekk jàppale jàppalewuñu ko mais amoon na projet bi bon fan yi aussi jàpp naa ne gouvernement bi jël na décision pour ñi marché bi. parce que nag euh, soxna ne ne euh, damay ja damay wax toujours ne ndakaaru ku mu doon sa kër nga xam ne yaa ko moom muy sa titre foncier doon nangu ni mbedd yi mel mel nii. Mm-hmm. loolu jàpp naa ne aussi ñëpp d'accord nañ ci muy commerçant yi muy gouvernement muy sénégalais yi ne dañ ko war a supparñi. parce que Dakar Plateau dafa am particularité boo xam daanaka réew yëpp moom rek ko ci am ville commune bu tuuti port nekk fa palais présidentiel nekk fa état major nekk fa assemblée nationale nekk fa marché boo xam ne bis bu yàlla sàkk lu mu tuuti un million cinq cent mille personnes daañu fa ñëw loolu bu ñu ko defarut ba mu ba mu ba mu baax mën naa nekk même un problème d'insécurité kon man dem si suivre naa émission bi ngeen ci def muy émission bu baax may féliciter ñi ak ñi ko doon def parce que yee ca feeñ mooy yett yii man gis naa ko benn commerçant yi d'accord nañ ci dem gouvernement bi d'accordoon na ci dem ñu ñu jóge fa waaye nag tëjuwut woon ne tey rek la ñuy dem man gisoon naa ko ci biir waxtaan wi. kon encore une fois li may ñaan rek mooy ginnaaw commerçant yi ak gouvernement bi wax nañ ba gouvernement bi may leen ba ñu dem tabaski ba noppi. li may sàkku ci sama bokk yooyu parce que man commerçant yi samay bokk lañ man awma gàcceeg doon mbokkum commerçant ndax man bi may jàng étudiant sax dama daan commerce da ñëw marché Sandaga di fa rango marché ni di ko yóbbu korodel di ko jaay kon man xam naa foofu ma sàkku ci ñoom ñu dimbali seen bopp dimbali gouvernement bi ba bu ñuy tabaski ji ku ciy dem ku ne sa boutique ba nga fay yoroon booy dem bu ca bàyyi dara su ko defee bu ñu dellu see duñ jaaraat Sandaga ñoom dañuy dem directement ci seen marché bees bi ñu leen yóbbu di ñaan gouvernement bi nag ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu te ñu fa jëlee ñu nekk prioritaire ci ñi nga xam ne ñooy dellu waat bu liggéey bi sottee man daal encore une maa ngi félicité wu ci dénouement tey bi loolu nag jàpp naa ne moo gën mais duma ko sax tuddee reculade damay jàpp ne xëy na yëf dafa jafe parce que na gis nga soxna ne ne moom Sandaga moom depuis 30 ans mu am jafe-jafe waaye nag wax dëgg yàlla bu ñu waxante suñu dëgg fokk ñu defaraat ndakaaru defaraat mbeddi ndakaaru yi su ko defee jaaykat yi am fu ñu jaayee ñiy dox am fu ñuy am fu ñu jaar bu ko defee nit ñi mën a euh, nekk jàmm am te kon c'est clair et net que Ndakaaru moom fokk mu xat rawatina plateau parce que yafa daje moo bari waaye nag xat googu bu ñu ci boolee benn désorganisation bi dana bi ci des mooy marché bi ci boppam muy euh, kii bu mag bi. depuis 2013 pratiquement kenn nekkatu fa waaye c'est un problème déjà parce que dafa lakkoon loolu bis bu yàlla sakk mën naa daanu. waxuma bu daanoo ku mu fa fekk ci biir moom mën na la gaañ waaye ñu ci alentour ba sax mën na leen a gaañ kon encore une fois na ko ñëpp jàppe ne yëf yi la njëriñu ñëpp nag kenn ku am naa ne xëy na bu ñu tabaski jee ba ñëw yëf yi ah, a jàpp ne xëy na du reculat xëy na dellu ginnaaw rek pour mën a sote bu baax la waaye yaakaar naa loolu muy gouvernement muy commerçant yi je crois kenn ku dana sàmm kàddu gi gi xam ne moom lay joxe commerçants yi gis nañ ko dañ doon jooy li di manque de communication de la part des autorités tey euh, ndogal bi juddu muy waneen rek ne que on voit un président de la République proche de son peuple boo xamante ne euh, mu ngi euh, déglu peuple am est-ce que noonu nga ko jàppee. waaw cest di que bu concertation amoon kon du ñu egg fii il y eu un problème de concertation entre autorités yi ak commerçants yi loolu moo tax concertation dafa am solo. te dama gis ne parfois on a un état qui est allergique à la concertation surtout bu ñu waree jël yenn décision wax naa la keroog ne la euh, euh, euh, responsabilité collective assumation collective tey bu ñëpp bokkee toog waxtaan jël décision même bu ñu demee ci échec sax dinañ jéem a xool lan la ñuy relever waat parce que xam nañ lii ñun ñoo ko waxtaan ngoon ba tënk ko donc tey bu ñu tolloo ci situation bi ba ñu tout à fait normal dans la mesure où bu ñu fàtte ne coronavirus bi créé na impact